def bilan bi li yomb la wax nañ ko léegi ñi may laaj bilan dañuy taxaw sama kaw bilan pero rek boo fi ñëwee misaal la ci li bi chaque def ndax pero fi gis tali daa fi gis pavage daa fi gis éclairage public te loolu fi def bi ñuy agsi en juin 2014 chauffeur taxi koo ne jëppal laa jëm mu ne duma fa dem ndax tali baaxul koo ne Castor laa jëm mu ne duma fa dem ndax li ñu jëkk def mooy defaraat tali xale yu jigéen yu bari yu amoon coquette dañu classé woon seen coquette fële baa bu ñu génn dañu sol corox bu ñu doxee ba solo coow yi génn ci kenn coquette waaye 6 centimètres 7 centimètres mën nga ko sol di dox ci biir commune Dieuppeul-Derklé waaye daf koy tooñ sax naan ma Cheikh mënu ko la béy ko mënu yaa ñu tàggaleeg faxas ñun faxas faxasatuñu Cheikh yaa ñu tàggaleeg faxas dañuy nongi nongi rek di dàngi dàngi ñenn ñi naan ma suuf si tàggoon nañu ak moom poussière bi tàggoon ci ak ñoom feebaru asma asma jeex yàgg fi dindi defar tali yi babe nga roq yeeg jumaa yeeg kon bu ma déggee benn waay bu génne fu ma kenn naan pavage bi état moo koy may jaaxal ma ne ko dellu nga jàngiwaat yow foo jógee pavage Khalifa Sall moo koy indi Dakar bi Khalifa Sall ne Dakar sans sable mu pavé Dakar yëpp créé benn usine bu ñuy wax benn chacha ñu gis ne Dakar ñu ngi soppi xar kanamam waa Dakar yi bëgg ko. ni ko yow booy voté waat fooy voté yaay gañe ndax def nga liggéey bu mucc ayib waa ji ñëw tuumaal ko tooñ ko pour xatal ko tëj ko tëj usine bi demoon ba naan usine bi Khalifa Sall moom moom usine pavage xam nga ne ñàkk élégance foofu la tàmbalee waa joo xam ne fu mun a gis ni la doomu bàyyi yéen woo ko lu dul kaso kooku buy lim ay noonu war na waaye ñun loolu duñu téye ba ñu gisee ni xaj xaj nañ ko Khalifa Sall la ñu dem gis fu ñuy defee pafe ñu wax ak ñoom ba tey commune Dieuppeul Derklé mën nga ni commune sans programme boobu la ñu am mbedd yi école yi jumaa yi fépp dañ koy pafe incha allah pavage bi nag bu amee ba nekk nañ ko sante Ibrahima a Ibrahima Khalilullahi na ci def na ko problème def na ko programme ba taxaw na ci kon yàlla na ko yàlla fay ànd bi yàlla na euh, donc ci mbirum environnement pavage bi laay wax ak voirie bi voirie bi nag ville de Dakar moo ñu ci jàppale ba démb sax waroon nañu commencé ñaari mbedd liberté 5 B yi mais machine bi moo amoon ay jafe-jafe waa ji na ma àjjuma incha daañu song liberté 5B pour defar seen ñaari tali yooyu yàlla ko yàlla mottali ci mbirum programme environnement cadre de vie liñ ciy yokk bariwul dinañu xalaataat benn plan de circulation bu bees surtout ci Castor ci booru marché bi pour dem bi ak dikki bi gën a yomb daañu yokk aussi désencombrement bi ak nettoiement bi organiser waat stationnement bi ba képp kuy dem boo duggee ci oto ci mucc ayib daañoo yi aussi pour am gàncax bu bari bi comme ni ma ko ko wéyal yaatal ko bi yëpp suuf dootoo ko fi yokk leeraayu lamp yi soo ma dee guddi sax daa ko mën a fot daañu yokk aussi poubelle yi nga xam ne mooy jël mbalit marché Castor aussi am nañ ci programme bu mag a mag pour moderniser ko ba nga xam ni jaay ci mbedd mi dana fi xew yi parce que ñiy jaay ci mbedd mi ay doomu aadama lañu dañuy daan seen doole kenn waru leen yëkkati bàyyi leen noonu rek dañ leen war fu ñu war a mën toog daan seen doole ni ñëpp te loolu lu war a mën a nekk la te ñu ngi ci programme boobu. ci mbirum santé maa ngi lim lañu fa defoon bari na yokk nañu poste de santé bi tabax fa benn maternité tabax fa logement bi sage-femme dëkk yokk équipement bi di jox garab saa su nekk suñu yéene aussi. mooy jënd ambulance médicalisée lu tax ambulance médicalisée wax naa ko léegi dafa am ñaari mbir yu ma dund mu metti ma lool benn bi benn xale bu jigéen bu toll ci matu ci buntu centre bi sax la wasin yaakaaroon ni ni centre bi am na maternité bàjjenu gox yi ñoo ko jël yóbbu ko ci clinique bi foofu la muccee beneen bi ni may doxe ci centre bi laa gis taxi bu gaare ndeke benn jigéenu yooyu moo fa nekk toll ci digg diggu am doom mbir yooyu yëpp ëllëg ñu jaaxal ñu ni bon war nañu tabax fii maternité ndegam jigéen ñi dañuy def seen visite prénatale ci poste de santé bi bu ñu tollee ci mucc ñu dem feneen ci yeneen loxo ci yeneen nit jaadu na commune bi am maternité loolu tax ñu tabax maternité bi waaye mucc amul waxtu mën na doon bëccëg mën na doon guddi ñu ni ñi leen di taxaw muy sage-femme bi war nañ ko tabaxal foofu logement maternité bi liggéey bi jeex na ba noppi logement bi liggéey bi jeex na ba noppi jox nañu sax table d'accouchement appareil échographie ak couveuse ci fan yu néew maternité bi danañ ko ubbi jigéen ñi mën di mucc fii ci commune Dieuppeul-Derklé organisation suñu ooy consultation ci feebaru diabète ci cancer du col cancer du sein ci hépatite B mais surtout ci planning familial ak consultation yeneen def nañu suñu mandat ñaari édition yoo nga xam ni édition bu ci nekk lu ëpp téeméeri xale la ñu jël xarafal leen seen waajur du ñu joxe fifteen mairie bi mooy jël lépp yëre ñu lii ñuy sax te yéen yi nekk ci commune bi te am association ñoo koy ñëw mais comme que ñun démb ci lool la ñu jaar dañ leen defal ay kasak maa ngi fàttaliku sax am na ab moo xam ni duut njaay duut sekk yaykat yi la ñu woowoon mooy ñëw fii di kasak am na at moo xam ne Salam Diallo moo ñëw fii di kasak xale yooyu lu góor lañu ñi ngi dem di ñëw yal yàlla barkeel leen taxawal nañu aussi mutuelle de santé programme bi ñu am mooy yaatal loolu wéyal ko mais surtout am base de ci mbirum ndaw ñi ak tàggat yaram liñ ci def bari na jardin yi nga xam ne démb jardin la te tey ñu fay tàggat yaram jardin yëpp ñoo leen clôturé boo demee jardin jëppal trois nga xam ni tey jii bu fekkoon am nañuy ñuy compter bu ma àggul millième bi ñuy sorowuma ndax la ma fa dugal ci ay bi bari na lool jardin boobu ñoo ko clôturé jardin jëppal deux ñoo ko clôturé jardin jëppal quatre ñoo ko clôturé jardin bastos ñoo ko clôturé jardin terrain yëgoo ñoo ko clôturé am na grillage bi ñu foofu sax nañu bëggoon jëkk tàmbalee clôturé mais ñoom bëgguñu ko woon ci jamono yooyu mais am na ñu mbébét ni daañ ko defaraat et gazonné jardin yooyu yëpp incha allah terrain Castor mbébétu commune nu Dieuppeul Derklé ak maire yi fi jaar yëpp la xëy na ci ñun la ko yàlla sottali mais comme que yéene Khalifa Sall la woon ci programme dafa bëggoon oo dix-neuf terrain bokk na ci terrain Castor mais li ko dal dal ko ñu teg ko rek ci politique bu bon ñun ñu jël suñu tànk dem seeti maire Dakar ni ko mbébétu Khalifa Sall la ñu bëgg àggale ci yow jàppale ñu pour ñu defaraat terrain bi bu mu mucc ayib moo ne dinaa leen jàppale waaye ndimbal na ca fekk loxol borom ni dinaa leen jox deux cent millions waaye dama koy def deux tranches le 23 novembre 2019 100 millions yi njëkk jot ñu ko dugal ci compte association entente Dieukheuli Walida ñu toog juróom-benni weer dara yënguwul ñu naan ma ana deuxième tranche bi ma ne la xam naa bala ngay laaj deuxième nga wax premier temps bi fu mu jaar bala ngay laaj kañ xanaa da lekk ba suur waaye lekk goo di laaj dessert donc ci noonu la ñu commencé def liggéey bi bi ñu demee ba gis ni ñi daal dañu nar tardeel wala indi jafe-jafe suñu jógaat jël mbir mi suñu loxo dem discuter ak promoteur beneen pour ñu àggale liggéey bi ba fay nañ ko lañ ko war a fay yëpp li ci des rek euh, avenant la mais gazon bi jënd nañ ko ba noppi mi ngi ci yoon bi di ags incha allah ci fan yu néew daañu teg gazon bi àggaleel liggéey ñii dem tey terrain Castor gis ngeen am na tabax bu ñu fay def ñu bëri naan banque la déedéet defal ñu banque ndax maire yi mbiram duwut xaalis mais mbiram mooy fexe ba ñu am ay jumtukaay yi askan wi mën a jëfandikoo foofu lañ fay tabax bloc administratif la maanaam ay versaire ak ay bureau moom la ñu tabax foofu ci terrain Castor donc suñu yéene moo di fexe ba ñëpp di def sport gis naa sax ci ay quartier ay nit ñoo xam ne dañuy dañoo di def euh, naka la tuddati sax di def gym mais ñooñu il faut les appuyer au ngay dem di jënd garab du seeti docteur ak si boobu mën nga am wérgu yaram pratique sport day wéral yaram bi ñuy agsi ASC yi ñu doon jot subvention cent cinquante mille deux cent mille ñun ñu xeet ko lool ñu yokk ko muy téeméeri junne lañ leen di jox développe sax comme que day dem di ñëw di tukk fu sori dañu xeeb deux cinq cent mille yi deux millions jox beneen bi si topp ñu jox leen yokk enveloppe boobu ci jamono yooyu xale yi ñoo doon wax di yo di taas Cheikh Gueye yaa ñu dig Cheikh Gueye yaa ñu dig nu ma leen jigee ñu ne ma ba nga ñëwee ba léegi coupe zonale yi fii ci commune bi lay des ma ne leen lu koy firndeel ñu ne ma juin 2014 ñu la fal maire en 2014 Wali daan jël coupe zonale en 2015 jëppal jël coupe journal jamono yëngal gësëm en 2017 Dexële jël coupe journal en 2018 même yëngoo dem final waroon gagné waaye perte match bi en 2019 def naa yéen Italie dem final waaw maire bu am nii bu am loo di ci wàllu culture u xarala ak diine la ca def aussi bëri na wax naa léegi kasa gi wax naa li ñu jàppale askan yi bu màggal jotee bu gàmmu jotee bu pàcc jotee bu noël jotee bu tamxarit jotee ay nag yu mucc ayib la ñuy yóbbu ci jumaa yi di jàppale nit ñi bu ñuy dem màggal mbaa ñuy dem gàmmu mbaa ñuy dem ay jàng sax waruñu def conférence bu koor bi jotee noonu naka na noonu koor gi sax dañ daan taamu ajuma bu nekk ñu dem julli ci benn juma doog fa ak askan guleet ci meeru jëppal derkale mu jël ay nit yóbbu leen ñu aji màkk mbaa ñu aji romb moo tax programme boobu bëgg nañ ko wéyal yaatal ko mais surtout organiser aussi li ñuy wax fête des voisins ci mbirum éducation ak formation dafa am solo parce que ñoom dañu gëm ni jàng ci la nit di moome boppam ci la askan di rawante ndax ay aji gëm lañu gis nañu yonent bi dañ ñu koy iqra apprend kon jàng dañ ko war jox gëddaam xale yi bu ñu jàngee jàng bu mucc ayib ëllëg ñooy yaakaaru réew mi tax li ñu def ci école yi mucc na ayib ci ñun la ñu commencé di tànn ay xaleel ñuy dem di défilé CAN Afrique musta dañuy jël élèves yi jàkk-jàng dajale leen ñu jàngal leen ñuy défilé ñu dem défilé CAN Afrique bu école bee ñu jox leen fourniture jox seen i maître jox leen aussi ay photocopieuse ak ay imprimante defaraat toilette école yi tey mën nga gis le 2 Derklé defaraat salle de classe yi defaraat mur yi ak bureau yi organiser ay cours de vacances mais surtout am na ci ñoo xam ne dañuy def formation mbaa ñuy jàng ci école yu mag yi dañ leen di may bourse lu mel ni CCA wala IPG wala Marmiton wala HTM am na ndaw yoo xam ne aussi bu ñu amee permis de conduire nga mairie bi tax plus de cinq cent jeunes am nañu permis de conduire mairie bi moo jël lépp xale yi nga xam ne ñooy def pavé bi jógewuñu fenn fii ci commune bi la ñu dëkk fi la ñuy yeewoo fi la ñuy fanaan ñoom ñoo rafetal ñoo taaral commune bi ñuy jëla sargal lañu aussi xale yi nga xam ne ñoo nekk ci pavage bi moo tax ñu bàyyi vraiment xel bu mag ci liggéeyu ndaw yi lii ci am yéen ci école yi rek mooy renforcer capacité accueil bi créer aussi bind lépp li nga xam ne dafa wër école bi te day yàq njàngum xale yi jàppale daara yi jàppale jàng bi aussi taxawal programme boo nga xam ne bu ñu def table banque dootuñu def marché mais dañuy gis ouvrier ci commune bi ñu boole leen ñoom ñu fexe defal table banque yi nga xam ni moom la ñu nekk ci école yi. def nañ ko benn at ak club de randonnée bi nekk ci commune bi table banque yi ouvrier yi fii ñoo ko defal bunt yi ak palanteer yi yàqu ouvrier yi fii ñoo ko defal électricité bi ouvrier yi ci commune Dieuppeul Derklé ñoo ko defal loolu war nañ ko gën a yaatal ba ñu dëkk ci commune bi di yëg commune bi ci liggéey ñu fay leen au lieu que ñeneen di fi ñëw di liggéey ñu leen koy fay. organiser même ce qu'on appelle le plateau de l'excellence maanaam ñi dàq jàng wala ñu am pratique yu gën a baax ñu leen di sargal di leen fetal ci wàllu jigéen jigéen ñi ñu jara sargal leen aussi def nañ ci lu rëy rëy bi ñu ñëwee di agsi dafa bare woon mbootaayu jigéen ñu ni leen da ngeen di dajaloo nekk réseau ba ñu nekkee réseau la ñu commencé célébrer journée du 8 mars pour la première fois dans la commune de Dieuppeul-Derklé 8 mars bu nekk ñu jënd ay tissus jox leen ñu jënd ay tissus ñu organiser fenn ci commune Dieuppeul-Derklé ci suñu ay la amee musta am mais yamuñu ci ñu defal leen formation jox leen financement bi mbas mi amee sax ci ñoom la ñuy jëndee eau de javel bi ñu doon joxee jigéen ñi ñooy defar eau de javel jaay ñu ko donc suñu yéene mooy créer fédération des femmes de la commune de Dieuppeul Derklé parce que dañu gis réseau bi am na ci bokk am na ñoo xam ne bokkuñu ci ci commune bi la ñu dëkk donc suñu yéene mooy boole leen ñoom ñëpp en fédération yokkaat aussi formation bi ak financement bi mais bëgg nañu créer li ñuy wax FAP FAP mooy lan mooy fonds d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat maanaam benn fonds moo xam ne dañ koy taxawal ak suñu partenaires yi ak yenn mutuelles yi pour képp kuy ndaw wala jigéen am loo bëgg def boo ñëwee ci fond boobu ñu lebal la nga liggéey fay keneen aussi liggéey fay mayewuñu nag dañ koy leble moo tax maa ngi dégg am na ñuy wër ci commune bi naan voté leen ñu dañ leen di financé eh ubbi leen seen bët ak seen i am na ñun fi financé woon gendarmerie ak police ngeen mujjee ñun yàlla bu ñu dal donc yooyu yëpp ay naxaate la et bi ñuy wax mbirum pavage bi am na benn waay ju dagg fële ci ci langue gi ñu ne rek mu ni duma dem ma ne ko yow man waxuma ak yow dama ni xaalis bi ñuy tuur ci commune bi fan la jógee loolu ndax gis naa ni ku wax rek ñu jox la ku wax rek ñu jox la xaalis fu mu jógee ci asamaan si la jógee wala xaalis dina la ndax gis naa fi luxuskatu xaalis am amoon na fi bàyyi xaalis amoon na fi et dégg nañu ñun ñëpp la xew poste xew Lonase xew trésor sax saw xew IPRES mais bëgguñu ñun ku dëkk ci commune bi ñu lay tam ci mbirum xaalis loolu rek la ñu wax moom mu ni pavage bi état bi moo ko def waaye ku teg Khalifa Sall ci defar pavage ndax daa pavé commune Dieuppeul Derklé pavage bi autofinancement la du PACASEN du état bi PACASEN ñun ñetti secteur la ñu choisir mooy éducation santé et sport pavage sax bokku c'est sur fonds propres de la commune de Dieuppeul Derklé Ibrahima Ndiaye xam na li may lii mooy yéene bi nga xam ni am nañ ko ci commune Dieuppeul Derklé donc wax yi ñuy wax yëpp waxu kasaw kasaw la moo tax ñuy wax ma ni leen bu ngeen ñemee ñëw leen ñu jàkkaarloo programme jàkkaarloo wax ñëw leen ñëw leen ci débat bi waaye man concours ma ci joxe xaalis ndax xaalis doyul man li ma mooy li ma wax askan bi woon askan bi xam nga luñ ma neex deret lëgoog man ci mbedd mi di dox kooku boo ko amee bu la doyee cofeelu askan bi laa am ak bëgg-bëggu askan bi moo tax ma ni ku leen jox xaalis seen xaalis la lekk leen ñu ne ko moom waaye bu ngeen demee ba ca man gàcce ba yeewi leen askan wi